ci lay doon sa euh, Pikine waa coalition benn Bokk Yaakaar ñoo fa wote woon ak ndaje si seen biir waaye ndaje ma nag euh, jàppale na ci fantasiro fasan teg sikkim la mujj xeexoo bu metti ba am ñu sa jëlee ay gaañu gaañu euh, bilang ba ñeent ñu sa jëlee ay gaañu gaañu sax yu metti tam ñu nga xam ne nii wala sax ñu sa gaañu yëpp ñu ngi fare ci ndaw yi APR yi foofee sa Pikine ñu ànd nu Younou de ci ay leeral moonte de mobilisation bi amoon na responsable Benno Bokk Yaakaar yu bëri ñëwoon nañu ngir fekkee ndaje mi waaye mobilisation bi ci pàccaxoo bu métti la mujjee lépp mu ngi dóoree ci groupe ndaw yu bokk ci kuréel bu ñuy duppee APR Pikine Active bu ñu yegsee dañoo bëggoon rek ñu installé seeni coordonnateur ci tribune officielle bi mu di lu organisateur yi bañ ni loge officielle bi def fees coow li tàmbali xeer yi jolli chaise yi di naaw ci noonee benn garde corps Abdoulaye Timbo pompe ak gaz coow li gën a bëri ndaw ñi rakkaaju ndaje mi mujjee ci pàccaxoo bu jéggi dayoo ñaari ndaw bokk ci APR Pikine Active jot nañu sax tamit ay blessures légères. jaajëf Yunusa euh, Balde El Hadj Mamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay maam. mu mel ni kon euh, mbas mi la ñu doon xaar mu euh, wàcc tuuti rek wala ñu lever li nga xam ne mooy état de catastrophe bi ngir nañu sóobuwaat ci seen i activité politique waaye nag benn bokk yaakaar sa Pikine moom ci ab xeexoo la ko dooree. Euh, très normalement xeexoo faaw mu am du lu ñu denc ci ay xol de mais askanu Sénégal fu mu nekk nii ñi leen jiite dañu xam ni dañuy egg ci jamono yi ñor mu exiger démocratie bi nga xam ni moo tax ñoom ñu falu élection locale bu amul fitna yi day gën a yokk ci gox-goxaat yi parce que dafa dafa yàgg ñi jiite jiite de façon illégale boo xam ne ñu ñu jiite dafa mel ni ñoom amatuñu kàddu amatuñu baat bu ñuy joxe gestion inclusive amul itam ci gest ci ci ci ngàbbin wi aw askan boo ko jiitee li nga koy jiiteel day xam nan nga koy doxalee mu leer loolu leerul ba noppi nga yokkaat ci ay at yoo xam ne légalul donc bu ñu amee benn benn occasion dañu koy dañu koy exploité mooy euh, ndaje amaat na ñoom bokk nañu surtout dafa commencé ci ñi ñuy wax appel rouge donc lu ñi ñu bokkal parti xëy na mais ci kanam tu day gën a grave li muy gën a grave mooy ñu du bokk ci benn parti muy ay société civile yooyu ñëw def face ñi nga xam ne ñuy politique parce que bul fàtte ni maire yi c'est vrai que bari na ay waa société civile ay mouvement yi ko jiite mais majorité bi ay parti politique lañu euh, parti politique yi majorité bi ci ñi nekk ci pouvoir bi lañu donc ni ñu jiite commune yi te ba léegi ñu ay euh, élection ngab bi ñu desee leer parce que ni faaw ñu exiger li nga xam ne mooy leeraange mooy li tax kilifa yi am ñu sas actuellement du jéem a régler wala euh, woote waxtaan pour defar seen base politique occasionné wu ci financer ay ndaw loolu amul solo li am solo mooy ndaw ñu gis ressources yi bàyyeeku ci seen localité ñu ciy jariñu ñi koy jiite itam jiite ko anam bu leer boo xam dañu ci am seen kàddu gu ñuy wax mais ñaari at a ngi ni yoo xamante ni bi kenn amul accès ci gestion yi kenn leeralu ko d'ailleurs loolu day def impact ci xale yi ni ñu doon attaqué maire yi du yoon ñu lakk état état civil mais sëb la li ko bënn mu ngi ci biir weñ gaa nga bañ a ca mbànjaxaan ga ñi jiite ñoo jiitewul ci façon bu légal parce que seen mandat dafa jeex